sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad kun fayakoon tv ñu ngi leen di siyaare di leen baal xaq te di leen ko baalu di leen ñaanal yéen ñi nga xam ne ni yéen seetaan seen bi di leen wax seen mbokk Cheikh Ibra mooy ñëwaat tey yéen ñi nga xam ne tamit yéen a bokk ci groupe whatsapp bi kun fayakoon tv la say sarax jàngale xam-xam yépp ñu ngi leen di siyaare bu baax di leen wax seen baa ngi noonu ngeen di gën di aboné yow mi nga xam ne ne gan nga ci canal bi da ngay abonné te bës cloche bi nga xam ne vidéo buñ ko def doonu doo doonu woowaa téléphone naan vidéo boobu loo ci waxoon ak yooyu ak yooyu da nga koy am ci sensé moo tax di moo tax ñu leen di soññi ngeen di abonné saa booy seetaan rek aboneel ñëw continuer seetaan mu gën a neex ci yow nga xam ne ne yow mi nga xam ne yaay gan ci seen bi tey nag ñi ngi waxtaane waxtaan wu am solo waxtaan woo xam ne ne diggante góor ak jigéen la diggante jëkkër ak jabar diggante euh, euh, ñaar ñu bëggante diggante ñaar ñu bëggante li nga xamee ne nag moom mooy téye sa sa sëy nga nekk ci sëy li koy téye ba nga xam ne ne sa jëkkër dootu doxaan sa jëkkër dootu takk keneen wala yow mi nga xam ne ne góor ga jigéen koo bëgg mu topp sa ginnaaw mu topp sa ginnaaw muy nopp boobu nob bu doy la nob boobu képp kuñ ko defal nang si ragal yàlla ndax nob boobu kun la ko defle eh, nit ki la defal pour mu topp la lan la topp comme xar ak doom muy nob bu doy waar nob nag buñ ko waxee mooy ñaar ñi nga xam ne ni dañoo wonante ginnaaw wala ki nga xam ne danga koo bëgg nga bëgg yéen ñaar seen xol doon benn bu nga xam ne ne foo nekk daf lay xalaat guddeeg bëccëg moo tax ñun nob yooyu lañ yor nob yi ñu yor jigéen gi fu mu nekk nekk ndax ñun lépp si wàllu xel mu nu joom lañ ci am du suur yëpp la ñuy nob dafa am suur boo xam ne dafa am biddiw boo xam ne ne moom mooy génn biddiw boobu génnee xool jigéen ñi seen avoor yi day maanaam seen dafa am pax-pax yoo xam ne dafa nekk si yaramu doomu aadama bi jigéen ñi heure boobu dafay ji dafay ubbeeku saa boo leen nobee rek jàpp leen waaye du nit ki du chaque jour nga tëb tëb rek bind ay nopp du tax mu jàpp nopp dafa am heure buñ koy bind comme lu mel ne suuru dimanche suur nangam am na nopp buñ siy bind suuru vendredi man moom ñaari suur yooyu moom képp ku ma si nopp foo mën a nekk ma jàpp la ak loo garaaw garaaw garaaw ndax man ñu bari ñoo xam ne damay jëflanteeg ñoom si wàllu euh, kilifa yi nga xam ne ne dañuy bëggante koo xamee ne nekku sax Sénégal koo xamee ne. da naan du julli du wóor ndax maanaam dem ba nga xam ne ni yow doo julli doo wóor kooku si sobe rek nga dikk am na fooy jaar nag am na biddiw booy dàkk boo ko jàppee seen xool yi day doon benn waaye nag comme li ñuy defaral yenn yenn saay nit ñi dañ leen koy defaral pour nopp juboole leen waxulu nag nga nekk nit ki mu lay jox alalam mu lay jox alalam nga mel ne ku koy xëcc loolu nag ah, bëgguñu ko bëgguñu ko wax dëgg yàlla Euh, di leen fàttaliwaat yéen waa gàmm yi nga xam ne ne yéen yéenay wax si wàllu wàccee bi incha allahu rabbi si weer wii mu ngi woote waat rek waaw incha allahu rabbi si loo leen bëgg rek ak kii bi waaye tamit bu képp ku ma si woo téléphone li ma lay wax rek parfum nangam boobu ne mu ko indil boo indee parfum boobu rek nga man laa wàcceel li nga bëgg lépp si xaalis incha allahu rabbi di leen wax nag nopp moom nopp trois jours am na. nopp vingt quatre heures am na nopp une semaine am na yooyu yëpp wàllu nopp la am na jaaro yoo xam ne spécial pour noob la mm, am ndomba yoo xam ne spécial pour noob la am tàngal ay spécial ay tàngal yoo xam ne ne pour noob la am loo xamee ne euh, jigéen gi da koy def si tubayam bu ko góor xa bu xase ba nekk jëkkëram wala ku mën a doon dootu takkate benn soxna moo tax daal wàllu nopp daal yéeme na waaye ñun liñ siy defar daal moom vingt quatre heures am na une semaine am na jooni jooni tamit am na si wàllu nopp moo tax ngeen abonné si seen bi képp ku soxla cabinet yi rek boo wootee si numéro téléphone yooyu incha allah rabbi daan la indi ba ba ci cabinet bi incha allahu rabbi ñu ngi leen di siyaare nag bu baax a baax a baax